jërëjëf mbokk yi ñuy ci 28 Pro TV di maison de production bi nga xam ne moo ànd ak yéen di leen baaxee lépp luy euh, image ci actualité euh, fas yéene ñëw ci seen invité de la semaine bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbaleeg yéen euh, fii nag lu ñëw Touba Kër Niang fekk fi nag kenn ci ñun di kilifa di responsable bu mag boo xam ne nii dañ koy bàyyi mun nuyoo bu ko defee ñu jublu ci présentation bi mu El Hadj Mame Mbaye Niang fii ci Touba Kër Niang. Sénégal mbokki mbokki Touba Mbacké département Mbacké région Diourbel maa ngi leen di nuyu mbokki Sénégal gépp di leen nuyu di leen sant di leen gërëm tey baal ñëpp El Hadj Mambay Niang la lañ ko xamee moom la tudd dëkk Touba Kër Niang sëñ Modou Fa Jama Niang mooy porte parole bu euh, kër gi xalif général bi euh, nekk tamit euh, chargé bi nga xam ne donc moom mooy lépp lu jëm ci wàllu culture fële ca conseil départemental bi nekk tamit ki nga xam ne moom mooy yore hygiène ak santé ci commune bu Touba moom nag la ñuy dalal ci seen invité de la semaine xam naa ci yeneen ci ay présentation ci ak kuréel yoo xam ne wala ay ndombo yoo xam ne yor na ko dëkk dina ci gën a ñëw ci nu mu gën a yaatoo ñu bàyyi ko rek mu àggaleel ñu ko loolu alhamdulilahi rabbil alamin ma sant yàlla bu baax comme ni nga ko waxee la Sidi noonu la parce que man dama nekk euh, conseil municipal ci commune Touba suñu xalifa bi moo fa joxe man représenté fa Kër Niang waaye ma duggee foofu nag conseil municipal boo ko nekkee dangay boole lépp ndax conseil municipal kon bu yem Kër Niang rek waaye bi ma demee maire bi daf ma dénk commission santé hygiène ma di ko liggéey liggéey bu rafet ba am ci résultat yu leer yàlla doget bi ñu demee élection euh, ci euh, conseil départemental bi ñu ko gañee man lañ dénk commission culture affaires religieuses fii ma dëkkin muy Kër Ñang yàlla dogal na man maa yor kaddu xalifa bi muy Serigne Thial Ñang Serigne Thial nag mooy xalifa Touba Kër Niang xëy na ko ñu kon mu mel ne maa yor kaddu njaboot gi di ko doxal doxalin boo xam ne defe naa ne rafet nañ ci yor dara alhamdulilah rabbil alamin ci Touba Kër ji nga xam ne moom nga yore euh, kaddu njaboot gi yëpp euh, naka nga dundee loolu nga xam ne moom lañu la dénk. mais xaa sant yàlla rek te la am ci xel mu dal ak rafet njort boo xam ne am naa ko ci ndax xalifa bi ma ko dénk. daf ma dénku kàddu gi waaye mel na ne moo koy yoral boppam ndax su ma ko yoree ay at te aw ma ci benn accident bu ñu wax dafay mel ne moom mi ma ko dénk moom moo ko téyal boppam kon ñuy ñaan yàlla yàggal ko ko rek ndax mënoon na ma ko dénk famille bi am ci lu leen naqar di ko xul ma di ko dégg ma xam ne ñu dàkkuruñ ci waaye bi ma ko dénkee dafa dëppook ñoom ñëpp ñu ànd ci mu neex leen kon mënuma leen a fay yàlla leen yàlla fay. ñu daal di ñëw ci euh, commission bi nga xam ne moom nga yore ci euh, commune bu Touba euh, seen liggéey foofu noonu fu ngeen ci toll parce que nekk na liggéey boo xam ne maanaam liggéey bu doy waar la muy santé ak hygiène te ku nekk xam na ni maanaam domaine bu doy waar la foofee naan lan nga gis ne maanaam bu ngeen ko ci yokkoon dana dindi leen ci ay jafe-jafe yu askan wi dund ak ban étape ngeen ci toll ci maanaam yoo xam ne dana ko jëmale kanam. mais foofu liñ ci gisoon mooy ci wàllu santé wax dëgg yàlla biñ ciy ñëw booba mi ngi doon dox waaye mel na ne gën naa dox ndax fekkoon nañ fi ay poste waaye biñ ñëwee maire dafa xalaat nañ yokk poste yi te defe naa yokk nañ ci euh, Kéré Mbay yokk nañ ci yoolu most Musti muy quartier bu bees boobu euh, dafa fàtte nu mu tudd ak euh, yokku nañ ci itam ndaam lañ fa def defe naa def nañu it Bagdad def nañu Asalem kon yokk nañ ci quelque ay post santé. loolu ay quelques post rek. waaw quelque ay postes ci loolu commune bi moo ko def te xam nga commune ku ne xam na dooleem bëriwul mais nag ci volontaire maire ak conseil yi nga xam ne ñoom laa lal ci lañ ko defee. mais commune bu Touba dooleem bëriwul bariwul à dire mhm. lu tax loolu commune bu Touba. mais ni dëkk bi fonctionné la te ak war-war yu bari ak événement yi fi am ak li aju ci bis bi te li war a def bari. mais loolu santé yaakaar naa dara jiituwu ci santé. waaw moo tax def nañ ci lu bari ndax boo contacté woon médecin chef district bi dana ne liggéey bi ñuy def ak ñoom avancé nañ ci lu baree baree bari. kon alhamdulilahi la alamin rek la ñu mën a wax. waaw te defe naa ne askan wi it xëy na néew ma ñëpp wax na apprécié nañ waaye li ëpp ci askan wi apprécié nañ man nag sa wàll moom. maire ak collaborateur am yi sax bi ñu wuti bat bi ñu wate bitse bi ñoom sant nañ bokk naa ci commission bi nga xam ne moom lañ gën a apprécier ci la euh, année bi budget commission santé ak hygiène mu toll ci ñaata ci million wala ëpp na mais nag bari na dama koo këruwul nii waaye li liñ ko dugal ci bitse bi bari na trop non comme da nga ma bett fekkoon da nga ma fekk sama bureau tey dañuy mën a génne wax la ne temps temps temps temps hmm. waaye da nga maa bett. alors situation ak population bi nekk ci Touba yëpp par rapport ak seen état bi nga xam ne moom la ñu dundee ci maanaam wàllu paj euh, gis nga ne yokk ngeen ay poste de santé mais est-ce que euh, qualité bi nga xam ne moo tax ñiy wax waxum paj dëgg dëgg ma nga am euh, boo ngeen yokkee ay poste am na lu fa war a am nekk matériel li dem ci wàllu médicament le personne personnel bi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu ndax yooyu tamit bokk ci li ngeen di gëstu di ko saytu wala di ko dooleel. waaw chaque année bu ñu wootee budget bi dafa am loo xam ne ñun dañ koy génne boole ko li état bi joxe ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo yor wàllu paj mi du ceeb loolu bu ñu koy joxe ñoo koy jël di ko seddale ñun dañ koy génne ci wàllu carburant ci wàllu uh, garab ci wàllu et cetera yu bëree bari yi nga xam ne moo leen di accompagner ñu génne ko ba mu mat limum nangam. loolu tey su fekkoon sama bureau dama naan la fii def nañ fi lii fii def nañ fi lii fii def nañ fi lii mais ñàkk gi këeroo tax bu ñu ko génn ko ci loxo médecin chef district bi moom moo xam ni poste yi doxee poste bu xam ne moom ko ci yellool bu jox la ko ñu accompagner leen ko ba bu lee ci wàllu hygiène ñun ku nga xam ne dëkk bi service d'hygiène ñoo ko yor événement bu fi amit yi nga xam ne ñoo war a pompe euh, dëkk bi ñun ñooy génnee loolu jox leen ko ñu dem jënd produit bi jox leen ko ñu dem liggéey damay wax ne daal wàllu santé moom liñ ci doxal bari na lool lool ci man li ma xam ndax bu dee bu doxutoon ñiñ ko seqal muy waa district bi da nga dégg ñu wax dara. waaye critique amul te wax dëgg yàlla am critique amul ñu ngi santante daal ci ànd ci. maanaam collaboré bi ñu collaboré ak ñoom. jërëjëf euh, mi fàttali yéen a ngi seetaan 28 Pro TV ñu ngi euh, dalal El Hadj Mame Mbaye euh, fii ci Touba Kër Niang mais ñu ñëw ci beneen ndombal tànk bi nga xam ne takk nga ko muy ci biir conseil départemental bi mais boobu noonu dafa mel ne ndombal tànk la boo xam ne ci fictif kenn gisu ko parce que gis na ne conseil départemental moom nit ñi dafa mel ne dañ koo fàtte complètement waaw xam nga ne boobu lañ koo xañe boobu ñu ngi opposition xeex ba gañe ko. mais man bi ñu ma joxee loolu man xalaat naa ne ñun kenn ku ne bu ñu la dénkee dara da nga dem war a dem wuti ay partenaire man dama waxoon président bi Serigne Fallou ne ko nañu fexe ba wut maison de la culture parce que département bi ñu fi nekk ci ay théâtre kat ak ñu mel ne ñuy jàng ay xasaayit ak ñeneen ak ñeneen ñi mel na ñoom ñun au moins suñ bitee li ñu am bu matul loolu it nañ tàmbali dara dem wuti ay partenaire ku ko dégg ñoo jàppale ñu parce que bu buñ fondation maison bi rek bu ëllëgee keneen ku ñëw day mën a continuer jëloon mais dafay mel na nag comme gañe nañ ko ci opposition ñu dem ba mu yàgg ñun ñi ko gañe woon mu mel ne gelwal gépp lu ñoo dem président bi dem wut parti boppam ñun ñi ñëpp ñu bàyyi parce que doxin wa moo wala bulut doxinu conseil doxinu conseil wala bulut parce que su fekkee da nga ne ci conseil départemental te yow daanaka xamoo na muy doo gis dara doo dégg dara loolu da ngay toog di xaar beneen mandat. te xam ne bii dañ cee échec moom. kon dafa mel ni kenn mooy dogal kenn mooy. voilà voilà nit yéen du ngeen ci xam dara. mu ngoog te ñun loolu mënuñ cee nekk di ci discuter ndax vraiment président bi kilifa la te ñun am na loo xam ne war na Sëñ Tuubaa ji lu ñu ko may. politique jëriñ lu ñu ko mais nag askan bi ñu ko joxoon ñoom ñoo ñu arbitré buñ demaatee ba élection ñëw suñ ñu ko delloo ñu xam ne. ñun lañ ñu ko joxe woon def nañ ko ginnaaw nag defuñ ko mun naa am ñu ñàkk ko loolu rek mooy wax jàppale ne moom conseil départemental moom yéen ñi ko gañe woon kenn du leen ko joxaat parce que liggéey leen fi dara loo xam ne tamit nit ñi dana leen dana tax ñu joxaat leen ko gisuñu ko kon waaw man daal ragal naa ne mënuñ cee jotaat mais ñun ñu ko gañe woon ñu ëpp ci ñun tasaaroo nañ waaw ñii wut nañ seen parti ñii dem nañ ci yeneen parti kon El Hadj Mame mi ngi ci ban parti mi ngi parti APR ànd président Macky Sall fas yéene liggéey réew mi askan wi ñu seetaan umpale nañ li nga xam ne moom mooy conseil départemental micro territoire lañ ci ànd ak yéen ñu seetaan ko El Hadj doog a ñëwaat ci yéen. xamuñu ko parce que ña ca war a dem demuñu see lañ war a wax ak ñoom waxuñu ko te loolu ñëpp xam nañu problème la tey boo demoon Mbusoobe fee ngay gis ne fi ñuy wax ci Mbusoobe problème mu courant dañ ko am. troisième position la ñuy def pour am courant te loolu Senelec daf koy tere lan moo tax làmp yi mënul àgg foofu boo demee fi ñuy wax sexa sexaw ga aussi problème boobu dañ ko am te dama jàppoon ni bu ñu fi nekkee pour askan bi yooyu yëpp dañ si war a taxaw pour dimbali ci askan bi. xam nga Touba comme ni muy doxee nga xam ne ville mode kii la statut spécial ni conseil départemental ni président commune. et cetera yooyu dañ ko war a jël ñu moderniser ko encore une fois jox ko population yi ñu téye ko seen loxo mooy tax ñu xam lan mooy conseil départemental. que tey bu fekkee dañu dem euh, élection municipale municipalité bi ñu dem ñu voté gars yi dem fal conseil ñu jël ku leen neex ñu fal ko ki nga xam ne moo ëpp xaalis wala ki nga xam ne moo naxtaan conseil yi mag yi et cetera te jeunes yi nekk fi di liggéey di xat-xaat xam nga boo xoolee conseil communal conseil départemental monsieur le maire kenn koo xam ne ci administratif ni mu war a doxalee administratif Touba am na amul. loolu tey waxuma la conseil départemental sax mais mairie bi sax tey boo ci defoon reportage comme nii laaj nit ñi lan mooy njëriñu maire Touba xamuñu ko. léegi nag pour ñu xam administratif lan la nga xam ne sous préfet bi fi nekkoon préfecture conseil communal conseil départemental la commune yëpp ñu pour ñu comprendre ko il faut ñu indi administratif administratif bi jox ko ñun ñi nga xam ne dañuy def politique. ñu wan population yi lan la lenn lu ne ñu wax population yi lan mooy njëriñam ñu koy voté ñu leen koy fal ku fi deful budget ñu jëlee la fi te bàyyi diw sëriñ la ak diw taalibe la ak diw doomu diw la loolu moo yàq dëkk bi voilà. kon dafa mel conseil bi moo fi nekk. non turu conseil bi moo fi nekk te conseil bi ñoom dañ ko ci ñoom ngir di dem di am seen ay xaalis bopp. conseil bi yow boo defoon fii micro trottoir comme ni nga def nii ñi xam conseil départemental bariwul. conseil départemental. non loolu de moom wax dëgg yàlla sama xam-xam màcc ci lu bari moom waaw. dina xam naa war noo fexe ne moom dëkk moom am innovation bu baax. silvissé ndox mi fii taa mën wàññeeku canalisation yi normal dem yëg gën a valable ndax xat na xat boo xamante ni Touba moom yellowul lool Serigne Touba liggéey na lu weesu lool. mën na war a defar dëkk ba mu gën a rafet. Euh, conseil départemental nekk fii si Touba ñu gën a fumu conseil départemental. waaw mais xam nga rek nit ku ne ak li ngay gën a yëngatu daal waaw ah. xam nga nit li ngay gën a yëngatu parce que sama expérience jotul màcc wàllu affaire politique affaire réew mi yooyu li sama xel jotam màcc rek la laa la mën a répondre waaw. Elage kon donc euh, gis nga am na ci yenn yoo xam ne maanaam wax nañ ni maanaam conseil départemental bi xamuñu ko wax ngeen ko yow itam seen biir dafa mel ne bu ngeen ko ñàkkee moom du lu ngeen di wutiwaat euh, ndax ba tey liggéey leen fii tamit loo xam ne maanaam jarul ngeen koy dabu jiwaat yan kàddu nga ciy gën a euh, dolli pour leeral. kàddu yi daal xam ne ñun nit ñi moom def nañ li leen war parce que ñun ñi ko seqoon ñëpp ay kilifa lañ day doomi kilifa ñu nit ñi ci ñun yaakaar wateel ñu. mais lañ ñu yaakaare woon wax dëgg yàlla defuñu ko kon nit ñi am nañ droit nag bu ëllëgee ñu seen nit ñoo xam ne bu ñu leen joxee dara ñu def dara. parce que li ko umpuloo nit ñi mooy ñàkk a liggéey bi parce que mbir bu ñu la ko joxee te doxaloo ko bu doxut nit ñi dañ naan duñ ko xam mais buñ ci liggéeyoon ñun soxlawul ñu di ci wax kon nit ñi ñoo ñuy arbitrer parce que ñoom ñooy wax ne conseil départemental def nañ fi lii def nañ fi lii def nañ fi lii mais man ragal naa ne ñun ñi ci bokkoon kenn ku ñemee taxaw di présenté wu ku ku ci am fulla wala nga doon nit di wax waxi conseil départemental boo dikkee nit ñi nag jëmal fële. ak xeex yëpp ba mais dañ koo xeex ba jot mais li ñu ko nit ñi joxee defuñ ko ci man bokk ñu dutee ba wax dëgg. ndax amul njariñ waaw man dëgg laay wax. loolu kàddu yi sincère la. mais bu doxoon nag kenn mënta tee mën a dox la mais doxuñ doxaluñ ko liggéeyuñ ko. liggéey leen waaw euh, kon loolu lu am solo la dégg ni mu ko waxee léegi kon dafa mel ni euh, jóge nga foofu noonu yaa ngi ci euh, parti affaire bi nga xam ne moom nga ñëw lu yàggul dara kañ nga ci dugg ak noo ci duggee ak lu tax nga dugg ci man li tax ma dugg ci li ma dal ci conseil départemental parce que dama ci duggoon ngir askan wi bëgg a liggéey mais biñ gañee ma gis ne comme man dafa am ñu ne sama kanam mënumaa dem ma loolu gàllankoor la loolu moom ma dal ci part du PDS bi ma nekkoon parce que président la dafa nekkoon am xalaat yu baax di léggéey teg yoon yu normal jëm bëgg a jëmale Sénégal kanam mais man loolu mu duggoon ma ma xam ne lii lu baax la ci Sénégal lu baax la ci réew mi mais bi ñu demee bañ 2012 bi ñu daanoo ma continuer nekk ci opposition bi mais bi gars yi dikkee ñi nga xam ne ñoom la bàyyee parti bi ñu nekk Dakar muy ñoom ma dikkee ay Omar Sarr ak gars yooyu consort googu liñ tegal nit ñi nii ak liñ bëgg a doxee parti bi département bi loolu ma xam ne du dëgg te baaxut ma bàyyi parce que li ma ciy jox firnde muy benn boo xam ne man ku ma xam xam ma ci PDS xam ne kenn gënu ma ci woon a taxaw kenn gënu ma ci woon a liggéey kenn gënu ci woon a dëggu 2012 bu ma neexoon biñ kii damay bàyyi damay bàyyi parce que dañ maa defoon suppléant lañ ma defoon ci département bi ma xeex continuer bañ gañee conseil départemental bi nekk ci cinq ans bañ dem bañ ba mu ñëwaat législative yi ñëwaat xanaa man bu ñuy fal man la ñu war a njëkk a fal ci département bi mais ñu jël ma yóbbu ma cinquante neuvième position ci liste nationale jël ay xuusement ñàpp tegal ma leen sama kanam man du caaga ne ku mu neex rek nga ñëw sama kanam. nga ne leen du ci ma ne leen loolu du ma ko def même am ngeen droit def lu leen soob mais am naa droit dem feneen. lii rek mooy wax ji. mais Abdoulaye Wade moom koo xam-xam na ne yéene ju baax la am ci réew mi moom la xalaatam mais na ñii mu teg nii fii ñii ci kanamu nit ñi parti ba day gën a wàññeeku ne ñeneen demee ñeneen dem ba ma dem man mii bu tëgg demee nag lu ko ëpp yee defati. kon daal jarul ñuy man daal xam naa ne dutuma leen topp du ma ànd ak ñoom maa ngi ci parti APR. ba lu ma ci góobee gar ko mm. mais nee nañ appel ku fay dugg dafay am noo fay duggee wala boog boo demee dafa am loo xam ne maanaam bu la ko joxee rek maanaam sa lépp commencé baax Mame Mbaye dal na ci loolu wala non Mame Mbaye moom dafa gis li xam ne moom la président di liggéey te kuy dem kuy dem lay àndal parce que Ila bi man biñ koy teg di ñëpp dañoo waxoon ne Ila Touba bi du am ay ay ma xool bi ko jamono yooyu ñu may bàyyi gis naan boobu Ila Touba parce que weesu na xaaj kon loolu preuve la ma gisaat wàllu sémi bi liñ ci doon wax man may liggéey ci wàllu santé ma xam jéego yi ci président doxal ma gisaat yeneen yu mel noonu lim daj ci baykat yi ak lim ko jaral ak déplacement yi ak ni mu wàccee jege askan wi ma xam ne lii ku laaj am réew bañ jox la ko da war a wàcc jigéen nit ñi ak di leen déglu ak la ma ci gën a neex nag mooy yar bi ak teggi ni ak nite gi. Mame Mbaye daal dégg Karim Wade souvent di ngeen daan déggante yaa ngi dégg ba léegi. daa nañ déggante mais déggante tuñ mu nekk Ndungu Siin ba génn ko dem Qatar. mosuñu déggante benn yoon lañ fi déggante mais déggante waatuñ di ba ma bàyyi PDS xamatuma ci lu ñuy xëy xamatuma ci lu ñuy gont man daal maa ngi ci APR. Mhm. fee daal lëmb ma lëlu ma Abdoulaye nag moom suñ mbaam la nit ku baax la vraiment dañ koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak su meloon ñëpp ñoom fa bàyyi buñ meloon ne moom yëf yi du demee nii. mais nag comme jur na doom doom ji màgg na mën naa dem vraiment nag sëñ bi nañ dem ànd ak président ànd dem liggéey réew mi ku réew mi ñor laax nag xaw ma ku leneen ñor waaye man réew mi moo ma ñor te président gi liggéey damay ànd ak moom liggéey. may fàttali ne yéen a fii ci Touba Kër Niang la ñu nekk euh, dalal El Hadj Mame Mbaye Niang euh, euh, ñu dikk nag ci benn point bu am solo boo xam ne nii moom la ñu weesu ci semaine bi rek muy ci tabaski bi foofu nga xam ne moom mooy tout Dakar ca Masaalikul Jinaar. dafa mel ne benn ñenn ci sa ay wël wëllëre dégg ngeen fa ay coow yu ndaw ndawaan yu fa tàmbali woon a am euh, yow am nga dara ci loo xam ne leer na la ci coow loolu ban coow <coughs> waaw dañu toog ñun ñu dégg ñu ne ku ñu wax sëñ Fallou Mbacke doomu sëñ Dan ma Réma Dame mais ku ñu wax maître Ousmane ko fekk fi mu toog na koy waroo toog fii waaw doomu sëñ Dan ma Réma Dame di surtout sëñ Mat Jee Mbacke ak sëñ Mat Jee ni mu bokkee sëñ Touba am na fu mu war a toog ci guy Moussa Légal dinaa. rawatina mu tudd Fallou sant Mbacke mu ne ko man Fallou sant Mbacke mu ne ko tudd Mbacke tudd Fallou sant Mbacke wut a tax nga toog fi kon kan moo fa war a toog c'est que ñoom ñooñu di ay avocat mën a toog ci range yooyu ñoo fa mën a toog asamaa kuñ tuddee sëñ Fallou benn ñaareel ba ngay doomi sëñ dan ma daal ñetteel ba ngay surtout sëñ mat jee di mbokkum sëñ Tuubaa di mbokkum doomi ñu baax ñëpp yow kan kan moo la war a gën a njëkk a toog foofu place mais loolu dafa bari ñum naqari parce que histoire bi Dakar la amee waaye waa Touba la gën a naqari parce que bi ñu ko yëgee bisu julli am na ñoo xam ne doon nañu bëgg a def point de presse waaye ku ne xam ne yoonu murid ni mu tënkoo yar ak teggin moo tax yooyu amu ci te su delloo am danañ gis leneen lu bokkut ak lii. est-ce que kon Masaalikul Jinaan googu du am ay problème yoo xam ne maanaam ëllëg yéen yéen a ci bàyyi xel ci maanaam wàllu gestion mais mais mais daal xaw ma. ci encadrement ci nan koy mais daal lii daal bu continuer leneen mën naa xew. xaw nag ña koy seere yëg nañ ko xaw ma yëguñ ko waaye war nañoo def très attention njabootu Sëñ Tuubaa gi ñu fay toroxal parce que man lii preuve laa ci am te bu ko keneen defaatee buñ ko bàyyee nii mu jàll keneen mën na ko defaat te bu ko keneen defaatee lu ne mën a jaxal nit nag dafa matam moytu ci gëm-gëmam ndax fàllu moomu am na ñu ko yaakaar ña ko yaakaar ma ngi leen naqari moom moo leen téye ne bu kenn yëngutu mais te loolu nit kenn du laal pas-pasam ku julli ci foofu mais bu doon ñaar sàpp jëkk yooyu fi ne ku jàngul war ci yoon waroo faa nekk ay ministre ak député loolu loolu du dara adduna lay parce que dañoo bëgg sappe su njëkk si ñi nga xam ne ñoo jàng te xam ñoo fa war a nekk ngir bu imam bi jamujee ñu mën koo gàggante kon amul affaire ministère ak affaire yi député xanaa kay bu foor dem sëñ tubaa foor ko moom masalik kuñ ko jox sëñ tubaa lañ ko jox mhm. kon deret sëñ tubaa wur am na fu fuñ ko naan ko fii ngay kooku du dëgg du yoon te loolu bu ñu ko arrêté wut loolu mën na cee juddoo. ci biir Massalikul Jinaan mm, waaw parce que sëñ Tuubaa ko moom te ñun ñun ay membre fondateur lañ ci yoonu murid mm-hmm. luñ gis loo xam ne def nañ ko ku bokk njaboot sëñ Tuubaa daañu ko danaa si daañu ci xeex. Mm-hmm. man pare naa pour engagé lu ma gis loo xam ne waruñu ko def danaa ci dem ba jeex. incha allah. alors euh, euh, El Hadj Mame Mbaye Niang euh, businessman la da koy wax nee nga dangay business te politique tamit business am na ci ñaari business yooyu noonu ban nga ci gën a faral muy ci business àdduna wala business politique ngay def. xam nga business su àdduna la nit ku ne da ngaa war ni la nga waree jàngi am xam-xam boo jàngee ba am xam-xam da war a dem liggéey business man sama métier la. damaa war a di ci dàq sama teraanga ñu jotee wut ak politique bi parce que politique bi sax ma di ko gën a def fii ma dëkk juddoo fi sama papa moom ko sama mag nekk xalifa bi dénk ma kàddoom ma yor dëkk bi di ci liggéey damaa war a dem politique yi parce que soo politique wul dëkk bi day dee loolu moo ma gën a dugal ci politique bi te ku ne xam ne ne Kër Niang avancé na sama grand frère sëñ mu daw Balla yàlla na ko yàlla yërëm yeex yaayuñu moo ko yoral doxal ci lu bari parce que poste bi yu bari moo ko fi indi ak courant bi moo ko fi indi po fii ma nekk moo fi nekkoon waaye bi wa ñëwee man dama ko yokk dama caa rek fi ne post bi te def lañ ko centre santé kon yokk na courant bi àgg na fu mu àggutoon kon yokk na loolu nag ku politiqueul di jaxasoog homme de politique yi di jaxasoog autorités yi doo ko mën duñ jàgg ne dañ lay jox baat rek wala ñu teg la rek nga jaaxaan di lekk ka naan loolu baaxul politique nag liggéey la boo xam ne moo euh, ni jaamu yàlla mel noonu la mel parce que yat la woo xam ne boo ko jëlul ab saay-saay jël ko dóor la ko kon da koy jël yow mi nga xam ne yow kilifa nga nit ko yiw nga nga xàmmee ñi nga xamante ne war nañ leen koo dóor ak ñu ñu ko war a dóor. waa APR kenn yaakaaru leen ne maanaam da ngeen gañ ci biir Touba euh, loolu looy confirmé loolu looy eh, maanaam dindi teg yi teg waxi politiciens yi la mais dama la wax ci ilaa Touba bi. man ba ma nekk opposition ci ñi ñàkkoon a gëm ne loolu amul ci laa du am ci laa bokk jamono jii nag ci lañ ko gën a gëmee ne ñun loolu waxi politiciens yi la parce que lii dañ ñoo lii gën a jafe ilaa Touba bi ndax dañ ñoon oh, dañ ñoon financement bi amul te du wérul ay falaa falaa te ku ne xam ne ne daañ ci jaar màggal man mii jaar naa ci Dakar Touba jaar ci Touba Dakar président bari dem jaar nañ samay nit ñu bari jaar nañ kon loolu la am la nit gis nga lii ay wax weddiwul dara jëf mooy weddi président Macky Sall moom politique am du politique gu wax waxante lu bon ak defante lu bon xam politique gu jëf la moom fu mu rek mu leer. alors euh, ñu daal di jeexale nag ci euh, maanaam dëkk bi par rapport ak euh, coow li fi faral am di léegi léegi ci maanaam ay mbaalam tuutal nit wala xeebel nit yéen ci tamit famille bi ngeen bokkee est-ce que tamit amul leen loo xam ne mën ngeen ko ci dox ay jéego nit ñi mën a bàyyi xeebanteeg yooyu. surtout ci kilifa yi nga xam ne souvent dañ leen di ŋàññee yooyu. waaw ñun ñu ngi ci ndax man mi di wax yow politique bi am na ñu ma ci attaqué di may wax lu bon mais kenn mosul dégg ma tontu nit nag bu la waxee lu bon wala mu def la ko li koy saafara sama baay def na woon bu ñu yar nit ku yaruwut a tax te ñun suñ kilifa gi lim ñuy sant mooy lim nekk dikk ci penc mi daa xam ne organiser li Sëñ Tuubaa bëgg tabaxul ay kër tabaxul dara. gis nga jumaa ji ay milliards la ku ko defoon ay kër dana dana doy waar lool. loolu nag ci lañu naq ñun ñëpp waxtu wu ne mu wooñu di ñu wax ne teg leen fii seen tànk liggéey ak jaamu yàlla ak warmaalante ak yërëmante ak dimbalante kër ñang ci loolu lañ nekk ñun. mosoo ci mbedd mi itam fekk fa ñuy yoxoob sàcc ñaari la dëkk waxutuma dox ci mbedd mi gis kuy kuy defuk doyadi bu ñàkk fayda ñu ne kër ñangal dëkk wax na waa mu bokk ci fooy kon fii moom li fi Sëñ waa defoon alhamdulilahi rabbil alamin lépp complète na ñu sant yàlla bu baax ñu jeexale ci li jëm ci wàllu parrainage bi est-ce que Mame Mbaye am na ci xalaatam boo xam ne maanaam wala bokk am na ci ay pexe yoo xam ne dana ko def ba liñ ci soxla ngeen euh, dab ko wala ngeen am ko waaw parrainage bi tey rek ci suba ma waxee li fi dugg ëpp nañ juróom fukki nit demal dabaare parce que a manqué mais di wax ni am na ñoo xam ne dañu dikk sax ne ma dégg naa parrainage bi jeexoon na def nañ ko ba jeex na te xam nga commencé gu mhm. mais man ku ma woo ku ñëw laaj ma dama lay wax ba pare woo su préfet nga dégg li ma wax su préfet du ko transparence na mhm. ñu ngi koy waajal parce que ku ne xam ne ne dañ ne da ngay joxe sa numéro d'identité mhm. sa numéro électeur aussi ak sa ak sa lieu lieu de war kon loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a watal président Macky Sall ñoom pare nañ pour déposer yooyu jaar ko ci ay norme yu leer parce que yooyu mooy yi nga xam ne. Mhm. bu ñu ko defee bu ñu demee élection dana leeral lépp mais nag nit ñi dañoo war a bàyyi su mbir xewee. Mhm. ñu toog di wax lu lu lu lu ñu xamul. parce que ñu naan parrainage bi jeex na bañ dolliwaat ko. ñooñu dañu informé wul amuñ xalaat demuñ ci mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo responsable parce que ki fi mujjee ñëw dafa ne dafa ñëw fag ñëw bil ko mu ne ma fi mooy kër sëñ maam Baye mu ne ma man dañ ma wax ne ma yow yaa fi nekkal APR ma ne ko waa mu laaj ma wala parrainage ma leeral ko ko mu sant ma gërëm ma ñeneen ñi mel ne moom ñëpp loolu nañ def kenn ku ne gox ba nga ne mm-hmm. demal ca ka xam ne ab responsable politique la wala mu jege liggéey bi wala mu gën la ko xam mm-hmm. nga laaj ko ñu ngi koy doxalee parce que du xuloo du xeex du xëccoo ku sa parti demal nga wuti ñu la parrainel te dem wuti électeur te wuti électeur te moytu waxi mbedd yi nag. jërëjëf jërëjëf mbokk yi 28 euh, pro nag mooy euh, méthode de production bi nga xam ne day ñëw euh, gunge askan wi ci seen maanaam image ak cérémonie ak lu mu mënti doon yow noo leen jàngate te ay xale yu dëkk biir Touba tuddee ko 28 bi nga xam ne donc moom moo nekk ci dëkk bu sell bi noo ko nooy fas yéene ànd ak ñoom. sant leen gërëm leen tey di leen ñaax ci. lii ngeen def ngeen gën cee góorgóorlu parce que adduna si communication moo ko yor ay ndaw ngeen ma noon ngeen choisir leen kon am ngeen xalaat ci réew mi leen rek laa leen di ñaan na ngeen fexe ba ku ci jàllale lu bon ku ci wax lu bon bu mu jàll. parce que nit ñi weesu nañ di déglu lu bon ku ñoo dégg lu bon bëggatuñ koo gis lu baax su ngeen bëggee nag mu avancé laa wax parce que man li tax ma wax ci dama leen a wóolu yéen ñii wóolu na man su ci waxee lu ma war a tax du ko jàllale. parce que da ngeen ko bañ ngir seen bopp da ngeen ko bañ ngir man mii di ko wax te nit ñi waruñu ko dégg parce que man damaa nekk bon exemplaire kon lii yal na leen yàlla jàppale te aar leen sàmm leen te xale yim mel na yéen nañ roy ci yéen wut lu mel nii ñëw ànd koog yéen ñu defar réew mi parce que communication mooy doxalum réew surtout communication bu baax kon nag yal na leen yàlla jàppale man nag comme ni ma leen ko waxee. engagé naa pour gunge leen ci man ak ku ma déggal ndax am na yu ma ci siiwar fekk ngeen ma ciy barab it ci ay kilifa te su leen leen rusuwalutoon su ngeen ñëw du ma leen rusuwal su ma wóoluwutoon seen jikko yéen ñi fi ñëw it su ngeen ñëw du ma leen rusuwal ndax am naa sañ sañ ngeen te ñu ma koro ba jaax waaye nag wóolu naa seen jikko ndax kenn ku ne jëflante na waaye yow ca rajo ba nga nekk wala télévision ba waaye lu baax rek laa xam ci yow am ci yéen confiance confiance bu yàlla bu ko yàlla tas ci barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërëjëf mbokk yi jërëjëf euh, ñu ngi am mbégte doon dalal El Hadj Mame Mbaye fii ci Touba Kër Niang euh, di porte parole xalif général bu Kër ñang euh, ñu ngi am mbégte ñu ngi àndoon ci équipe technique bi Bekaay Ndiaye Talla Samb ak Serigne Mbacke Fall ci présentation bi Sidi Diakhaté la dig daje ci yeneen jotaay ci invité de la semaine.